وهذه الخدمة كانت لا شك مصدر شرور وفرح وبسر للرسول ولكل المسلمين المخلصين الذين تهمهم رفعة الإسلام وإعلاء كلمة الله في الأرض وهداية الخلق إلى المحبة إلى المحجة البيضاء وفي هذا يقول الشيخ على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام موي liggéey boobu du mën a صلى الله عليه وسلم bi sallallahu loolu bayit bi moo mujj wax moo koy firndeel mooy li mu wax ne ala alladi qad sarrahu ixdaami lahu muqaddaman ala alxuddaami mooy yàlla yàlla def salaatu wasalaam mu julli ci yonte bi nga xam ne liggéey bi ma koy liggéeyal bégloo na ko alayhi salaatu wasalaam muy liggéey boo xam ni amul sikk na yonte bi bégloo na ko ndax yonte bi li mu gënoon a bëgg mooy kuy kuy kuy tasaare lislaam kuy tasaare lislaam di dox ngir lislaam di jëfal lislaam loolu mooy li li yonte bi gënoon a bëgg ba tax na saxaaba yi ci loolu lañ doon rawate mooy gën a nekk ci luy yëkkati lislaam Sëñ Tuubaa nag dundam gépp ci loolu la nekkoon te da ko jàppe woon liggéey bu mu doon liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dinaa ñëw ci ci bi muy lim yeesal gi mu yeesal diine <coughs> yeesal bi gi mu yeesal diine loolu wax na wax na ci bërëb yu bari ne liggéey yonte bi rek moo tax ma di ko def wax na ne daxat daxat mahabbatul ilahi wa nabi qalbi li nusxi aqrabin wa ajnabi maanaam bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak bëgg yàlla moo tax may laabire nit ñi moo tax may bind bind téere yi ngeen xam téere yi xam-xam yeeg lu ne bind na ci bind na ci tawxiid bind ci fiq bind ci tasawuf wax na nag li tax may bind yooyu yépp mooy bëgg yàlla moo ko moo ko sabab ak bëgg yonente bi sallallahu alayhi li mu doon gindi nit ñi ak leen jubbante ak leen teg ci yoonu jub loolu dafa wax ne lépp lan moo ko sabab mooy bëgg ma bëgg yàlla ak bëgg gi ma bëgg yonente bi sallallahu alayhi wax na feneen itam ne abussu li wajhillahi ilman mubarakan yasurru alladi ahya layaliya an qumi dinaa yulli xam-xam bu barkeel ngir jëmmi yàlla rek moo tax may jàngale itam <coughs> waaye lan laaj jiblu mooy béggal yonente bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne yàllaa ko wax ne ko xum fa andir mu daa taxawal guddi gi xam ngeen yonente bi sallallahu alayhi taxaw guddi gi dina naafila loolu farata woon ci moom waaye du farata ci xeet wi loolu moo tax ahyal layaali an qumi ba ko yàlla ne qum rek ca ba lislaam di doo ko wàcc xam ngeen ne aaya boobu wala saaroo ci boobu ci ci aay yi njëkk a wàcc ginnaaw iqra ci la bokk ya ayyuhal muddathir xum boo ko yàlla ne xum moom yonente bi bu toogaatul ba nuñ ko mujjee gis ci taxawal diine ak bëgg-bëggu suñ boroom ci la nekk ko kenn nga xam ne moom la yàlla digaloon loole la Sëñ Tuubaa wax ne li koy bëggal te mooy xam-xam tasaaroo loolu dinaa ci yulli ci xam-xam xeeti xam-xam lu bari ngir nit ñi gindi ko ci yoon ngir yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg wax na itam feneen tawaalifu tawaalifa saadaati ujaddidu naasixan لوجه الذي أعلى مدادي ومرقمي وحنا فني تامني أبشر خير الخلق بالخط خدمة بعقد وفقه بالتصوف إلى الجرال موي تالي في في سورو سانغ يو باخيا تاليفون دينا كو ياسالات خم نغي توحيد لم تواي مويلا لان السنوسي نصر لا امام السنوسي وسرون ci tawxid moom la way tuddee ko mawaahibu al quddus la abdurahman al akhdari wesaroon ci fiq way na ko tuddee ko lan jawharu nafis li cheikh mouhamad yadaali wesaroon moom it ci xaatima tasawuf way na ko tuddee ko lan masaalikul jinaan muy way muy dem rek yu bare bari min haajul abidin yaakaar na boo jumut moom la way ci ci ci ci ci ci ci munawir sudur imaamul Ghazali moo ko defoon muy dem moo tax li mu wax ne tawaali fasaadaati ujaddidu naasixan maanaam li nga xam ne taalif nga xam ne moom sama sang yooyu téléphone nañ ko dinaa ko yeesalaat jublu ci léebiri nit ñi li wajhi alladi ala midaadi wa mirqami ngir jëm yàlla subhanahu wa taala moo tax ma koy def loolu it moom la wax ci bayit yoo mu mooy maa ngi sàkkoo bigal yonente bi sallallahu alayhi wa ci bind ngir ngir lan ngir bégale ko ko xidmatan bi xaqdin wa fiqhin wa bi tasawufi lal jadal mooy du ma werante du ma dàggasante yooyu du sama mbir waaye laabiire moo ma tax a jóg ak wax ngir yàlla loolu yi nag moo tax liggéey bu mel noonu nga xam ne dundam gépp da ko def ci ndax fi ne loolu mën nañ ne mooy li mu wax waaye da koo jëf dafa taxawal ay daare alxuraan taxawal ay daare xam-xam daare alxuraan ji mën nañ ni moom ci boppam moo ko daa jàngale daa jàngale alxuraan ci njëlbéenam di jàngale xam-xam itam bi mu wootee yoon wi ca mbakk ca Mbakke Kajoor bi mu njëkkee woote keroog la bàyyi njàngale mi moom wax na ne keroog borom daal moo tamit la ko la dénk mu ta muy jàngale xam-xam sëñ Daam Abdurahmaan Lo itam mu féetale ko njàngum alxuraan mi muy jàngale alxuraan sëñ bu sey itam doon doon jàngale xam xam-xam moom it loolu ci liggéey yonte bi la ko dugal muy njàngale moomu yemul ci loolu itam dafa taxaw li ñuy wax daari tërbiya tërbiya mooy ñi nga xam ne jàng nañ ba noppi xam nga njàngum kese ku ko yore sànq ngay gën a def ci ci jubbantiku tërbiya ta ñàkk tërbiya mooy gaay yi nga xam ne yàgg nañu jëflante ak yàlla ba am tawféex ci moom am ubbiku li nga fat ñooñee nga ñëw ñu teqantal la yoon wi lebiré la di la jubanti ba kérok sa ra tax ratax da naka moy tarbiya bo ñëwé nak anam gañ ko réfé mëna metti am na ñoo seen bakkan la top topp faw ñu lo leen seen bakkan bobu am ñoo dañuy rëy yéeg seen bop bo ñëwé faw ñu fexé ba nga ba ba ba rëy gogu dañ ci yow dañ ko réfé moy di la woyofal ci ci ci ci ci nit ñi am ñoo xani mënu ñu lool motax tax lu am solo la tërbiya noonu señ bi doo ko wutal dara <clears throat> momit bu ko defee itam <clears throat> euh, <clears throat> di ca di terbiya ba ginaaw bit la samp ay ay nit ñuy terbiya borom Daaru Muxti mi nu ne ci pakar ci ci keparam yabal na ko ba tay ay nit ngir mu terbiya leen kon bi mu ne nu ne ni nu sété da naka ñi ñu bari ñi ñi fi xam ñi ñepp dañu fi yabal yebal señ sëñ Manoumbe Dieng mi nga xane moy moy borom kër gi xam moy ci moy ci ak mbedd mi si munu méjëg si ñi fi borom daru yebal la moom ci moom daana nettali lu bari nettali na ñoo xam ne ñoo ko ko nettali mooy wajur soxna may jëg mii moom borom daru doo ko fa yebal ay yoon muy dell ndax booba njaareem daa gën a neex fa sëñ ba ne daa gënoon a neex fii borom daru nekkoon moo tax kuñ fi yebal ñu bare ba ñu yebal ñu delluwaat sëñ bi da ko fa yebal ay yoon yoon wu mujj woon nag sëñ bi da ko wax ne la nga bëgg ñu bëgg la ko ma nga foofe ca Cerno demal ba nga toog boole ko ponkal moo xam ne dana ko sa loxo ak loxo ci am sëñ sëñ mën dalaa nettali na yoon woowee maanaam waa ji sonal na ko lool ndax waa ji daa jërug buum ginaaw sëñ bi nee ko sa loxo ak loxol cerno fa su yéenee nga am maanaam maanaam bàyyi ko te tëgg ko ci loxol cerno nee na bu demee bay faj aajo sax day jërug buum tag ko ci ci ci ndiggam yore buum gi waaye du ko bàyyi mukk mu sore noonu la ko rek ba dañ agsi bi ñu agsee mu da ko mu tegal ko mu teg ko ci loxol borom daaru wax na ni borom daaru kër bu ñëwee nee na borom daaru da ko wax ne ko yow de sëñ bi dalaa dalaa dalaa bëgg rek waaye bari nañu nekk foofee day te seenub cër mi mi ngi fii loolu it mas na ko firee nu bare bari bokk na ca mooy kër sëñ bu mujj gi sëñ bi ci moom dara wax ne tër bi ya taxoo la laajte fi ne mënatumaa taxoo kenn moo tax ku ñëw da la yebal ci ci ci genn ci kilifa yi ndax mujj gi mënta tërbiya ndax fu mu génne rek nit ñi duñ ko may jam motax kuma sa ñew ngir tërbiya dara yabal ci kenn ci ñi nga xam man ñanga nga Allah bari ba kon <clears throat> daal di jojit momi da ko déclarat yéssal ko liggéey bobu nak liggéey bu réré la bo xamni ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na ci waye julit ñepp it dañ ci bëgg ndax lepp lu yëkëti l'islam fu ko julit déggé da ja wara bëgg par parlo yi xew lu yaq rek la te defarut julit dëgg rek képp ku bëgg a mucc da nga ci génn parparloo yi amul njariñ Sëñ Tuubaa li mujj dénkaane mooy moytu leen parparloo parparloo mooy lan mooy yow masalan ka nga xam ne nekkatub murit bu defee lu mu def lu mu rëy rëy ci lislaam yow doo ko jàppee dara parce que du murit loolu ay caaxaan la lislaam lépp lu ko yëkkati rek jàppal ne loolee Sëñ Tuubaa lañ ko defal na ca ngir yàlla te xam ne sëñ bi lañ ko defal moo tax ña ca des it duñ murit it ñooñu loolu lañ leen di wax ñooñu it fi ne war nañoo xam ne lépp loo xam ne day yëkkati lislaam it fañ ne war nañ caa bég ngir yàlla te xam ne yàlla lañ ko defal ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam te lépp luñ ko defal ab jullit war na war na wañ caa bég moo tax sëñ bi wax ne <clears throat> li sëñ bi def ci yëkkati lislaam ak yëkkati baatub suñu borom tabaaraka wa taala ak gindi nit ñi teg leen ci siraatu mustaqim loolu yi jullit ñëpp war nañ cee maase bég ci mu neex leen nit nga xam ne yonente bi moom moo ci njëkk a bég te loolu sëñ bi firndal na ko ci waxam jooju wax ne ala alladi qad sarrahu إخدامي له مقدما على الخدام قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم